mbokki internet yi bàyyi xel improtive TV yi tey fi situation Sénégal toll ñii naan Sonko ëllëgam ci politique lan la parce que tey patriote yu bëri tiit nañ li wa tax tey ñu fekk jëmm joo xamante ni Mbàkke la sant mbokk yi jëmm ji sëtub Sëñ Fàllu la Sëriñ Baara Mbàkke di doomi Sëñ Galas intellectuel moom Alaaji Baara mbokk yi jëmm ji du koy waxantu mu ne ma kaay ma leeral la ndax mbir mi li ma ci xam bëri na te borom baatin la jëmm ji sëñ Touba mooy maamam waaye sëñ Fallou mooy maamam alaaji baara bi mu toogee ci jal bi ci la lu bari defaru ca Touba sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëggi euh, waxtaan bi sëñ Baara Mbacke ñoo ngi lay ziar. ñu ngi dolli ziar bu baax sëñ dëgg ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ak mboolem xalif généraux yu fi réew mi yëpp moo xam sëriñ Mbay Si Mansour sëriñ Mouhamadul Mahi Niass sëriñ Abdoulahi euh, Makhtar Lahi ak mbooleem xalif généraux yi ci réew mi yëpp euh, di ñaan suñu borom def si réew mi jàmm ak li nga xam ne moo di ak dal jërëjëf euh, sëñ bi sa diggante ak Ousmane Sonko bëgg naa ñu ñëwaat ci parce que gis nañ am ko taxawoon wax ne président Macky Sall ay jamono bi mu fi naree am jafe-jafe ak Abdoulaye Wade ci sa maam Alaaji Baara la dikk alaaji baara taxawoo ko nu ne yaakaar naa lu bëri fekk na la fi mais dañu gis ne yow côté sonko bi nga gën a fare ba ñu bëree bëri mbir mi def leen a jaaxal en tant que surtout suñ fàllu sonko ban mbir nga gis si moom ba tax nga ànd ak moom ba toujours ci say wax sax dañuy gis ne sonko nga lu koy loo koy défendre. waaw sonko nag li ma gis ci moom ba tax ma ànd ak moom mooy li ñëpp gis ci moom bi ci jiitu mooy dëggu gi nga xam ne dëggu na ko. ñaareel bi mooy jub ki nga xam ne jub na ko ci fi nga xam ne jaar na fa yëpp liggéeyal fa réew mi wane fa ak njub waaye ak fa mu génnee di enaam wane fa ak jàmbaar ndax foofu nekkul ku ne fa mën a jaar ñaareel bi bam fa jaaree génnee fa major di jàmbaar tey dugg euh, dugg fi nga xamante ni moo di impôt et domaine bu dee ci côté Zahir loolu bokk na li tax ñu ànd ak moom beneen bi bokk na ci li tax ñu ànd ak moom yëg nañ ne mooy ki nga xam ne moo war a soppi Sénégal teg ko ci yoon woo xam ne tey jii fii réew yu mag ya àgg ci développement moom mën nañu faa yóggu moom Ousmane Sonko. bu dee nag fi nga xam ne Cheikh Mamadou Lamine Bara Fallilu jaaroon na fa ak Macky Sall yëg-yëg ba mu amoon ci Macky Sall ak jàppale Macky Sall ak ñaanal Macky Sall ba Macky Sall doon président euh, président Sénégal yëg-yëg boobee lañ am ci kii di président Ousmane Sonko fonkeel googu lañ am ci moom ñaanal ko incha allahu taala ba mu jot ci li nga xam ne moo di président wu Sénégal. danañ ñëw ci verdict bi parce que tey sénégalais yu bëri tiit nañ. naan Sonko bu ko caabi féetee ginnaaw ana fan la réew jëm mais ci côté baatin sëñ bi tey bëgg naa ñu waxtaanee loo xamante yaa ngi ciy dimbali jaami yàlla yi muy kaaraange ñu bëri dañuy wax naan sëriñ Bara Mbacké yàlla def koo dénk dafa am ay xeeti kaaraange yoo xamante ni mi ngi koy liggéey képp ku mu ko defal rek sa dund kenn du man ci yow dara bëgg naa ñu xuus tuuti ci kaaraange. waaw kaaraange nag dama doon wax ne waxoon naa ko fii dama koy leeralaat damay wax ne ñeme naa cee jonganteeg ku ne. ndax kaaraange dafa bokk ca xam-xam yi ma njëkk a gëstu mhm. xam-xam yi ma njëkk a xam mhm. ndax sama maam Abdoulahi Soare mhm. yàlla na ko suñ borom dolli njëggal ak yërmande mi jur sama jur wu jigéen bu ma daa masaana jugee daara ja ñëw di gëstu ci moom li ci ëpp kaaraange la ma daa jox nga xam ne am na ci boo xam ne bis ba ma ko joxee dafa wax ne képp koo xam ne def defal nañ la ko maanaam képp kuy jéem ci yow di la liggéey baa mu di la yàqal ñaara maanaam mu dee wala mu tal boppam waaye kon moo tax ma ne kaaraange moom dama cee ñama ñemee jongante ku ne ndax koo xam ne dund na 94 ans jox ma ko di sama maam euh, jur sama waajur wu jigéen tàggat ma ci booleeg li ma gëstu ci àll bi moo xam bisaawoo moo xam Casamance fu mu mën a doon ci dëkk yi moo xam Gambie moo xam Saloum moo tax mboolem xeeti xam-xam yëpp laa am waaye kaaraange moom moom moom moom dama cee ñamee jonganteeg ku ne. moo ci gën a gaaw kaaraange. kaaraange nag am na yoon yu bari am na ñoo xam ne dañu naan bëgg takk sangu lañ bëgg nga defal leen sangu am na ñoo xamante ne bëgg nañoo takk waaye li gën a wóor te wóor daal mooy. man sama mbir danga boole ñaar muy sangu ak takk ñaar yëpp laa lay jox. moo gën a wóor ñaar yëpp laa lay bu dee nag buggoo takk ñu doon laa jox bopp sangu bi kese waaye li ñu gënal moom mooy dañ lay jox ñaar buñ la ko joxee nag amul bépp benn mbindeef ci kaw àdduna bu manati dal ca kaw yow ci wàllu liggéey déedéet loolu moom loolu moom loolu moom bu la neexee bu ci ñaan loo ci. xam nga sëtu sëñ Fallou laa rek doy na kéemaan mais bokk na ci liñ lay gën a bàkke mooy sëñ Baara dafa mën a seet dégg naa seet ko mën nga lool. waaw seet moom leeraloon naa ko dama koy gën a leeralaat ñun dañuy dox ci xam-xamu xilmu nu jóom nga xamante ne ni ma ko waxee woon nit kenn du ko seetal ci turu turam ak turu ndayam déedéet waaye li nga xam ne moo di date de naissance am ci nga koy ci nga koy seetalee leeraloon naa ko ndax nit ki aw turam juddu na ba am juróom-ñaari fan ñu door koo tudd waaye date de naissance bi dafa dafa dafa jiit ñaareel bi itam ci xam-xamu xilmu nu jóom boobu nit ki bis yi muy juddu dafa am lu muy tegtale heure judd am lu muy tegtale masalan mën naa ci indi ay leeral muy nit ki bu juddee waxtu suba teel da ngay xam ne kii borom daraja lay doon borom xalal lay doon ku ku am tedd nga lay doon nit ki bu juddoo waxtu wi nga xam ne moom la jant wi di fenk dangay xam ne kii mbiram ci day sonn door ko am day daj coono door ko am nit ki nag bu juddoo waxtu yoor-yoor kookee da ngay xam ne mbiram ci ay jafe-jafe ak i tartar aki i xat-xat ci la koy amee mm-hmm. nit ki nag bu juddoo waxtu wi nga xam ne moo di waxtu tisbaar moom itam dinga xam ne borom kaaraange la di nga xam ne borom kaaraange la mais aussi itam dina nekk itam borom daraja maanaam ku fës lay doon ci ay mbokkam ku fës lay doon nekk ku xew ci biir ay mbokkam bu juddee nag waxtu tàkkusaan waxtu tàkkusaan da ngay xam ne ku sob lay doon mais tamit aussi day ànd ak kaaraange waaye ki nga xam ne dafa juddu itam maanaam maanaam waxtu timis day nekk ku gaaw a mer ku tàng nii waaye nag du yàgg ci mer yi waaye nag ku juddu li nga xamante ne moo di moo di moo di moo di waxtu geewe ñooñu nag ay boromi tap la ñuy doon moom itam nekk ay nit yu fegu waaye ku juddu nag waxtu xaaju guddi ñoo ñu moom mën ngaa xam ne ay boromi ijaaba lañ ay nitu yàlla la ñuy doon ay nit yu fegu la ñuy doon ay nit yu jub la ñuy doon ñun nag bu ñu la seetalee ci seet gi ñu lay seetal. ci la ñu xamee sa mbir. ndax li ma la wax man bu ma la bu ma amee sa date de naissance. dèjà dina am lu ma xam ci yow. Ah. bu ma seetee nag sa mbir yëpp gën maa leer. Ah. nga xam ne di nga xam ki ne bu dee ki nga xam ne borom alal euh, suñ borom mooñaale na ko alal ak daraja hmm. kooku li ngay ci moom mooy kaaraange. dindi ci moom taq-taq yi nekk ci moom muy cat yeeg làmmiñ yeeg bët yi ba nga xam ne day mën a jot ci kaaraange googu ki nga xamante ne tey ay mbiram ci ay tartar ak i la koy kof kooku da nga koy defal kaaraange mais aussi bayre ak ubbeeku nga koy gën a renforcer pour mbiram yi tam di gën a yomb kon noonu lañ koy toppoo bëgguma jël temps bi waaye noonu lañ koy toppoo di ko toppoo nit ki ba nga xam ne bu dee ku lu lu waay mën a dugg daal dañ koy seet xam ndax lii leer na am leerut ak lan yan yan wàccuwaay lañ ci war a def da ngay faral di wax naan man du ma ñaanal nit ki ci alal ñaan nga yeex wala ñaan nga takk dégg naa secret alal yàlla dénk na la ci lu kiimaane yàlla dénk na la ci lu doy waar. man na xaw ma baatin ba xam naa ko ndax baatin bi suñ fàllu la mais ci zaahir nii xeetu gàllaaj yi ngay joxe ku ko jëfandikoo wërsëg gane si ko. waaw dama laa waxoon ñaar suñ dégg bi nga fi mujjoo. dama leen képp ku ñuy ñaanal ñun bu doon da ngaa ñëw rek. di ñaanlu ci wàllum wàllum wàllum tey ubbeeku. maanaam ñun duñ ñaanal nit ci benn mbir boo ñëwee ne ubbeeku nga bëgg danañ diagnostiqué sa mbir muy biñ la xoolee ndax boo demee hôpital dañuy xool ban feebara la dal ginnaaw bañ diagnostiqué sa mbir xool ba xam lu la dal maanaam duñ yem ci mbir mi ngi ñu wax lépp luy sa jafe-jafe dañ koy dindiwaale ndax sëñ bi nit mënut a dund dund sans alal nit mënut a dund sans teraanga moo tax bu ñëwee ni ma ko waxee woon man sama sama gàllaaj gu ne alal dana ci bokk waxuma jaaro yi may joxe nga waxuma jaaro yi waxuma càngati ubbeeku yeeg bayre yi waxuma yenn waaye man gàllaaj gu ma la jox rek ca ubbeeku dana ca bokk ubbeeku gu amut àpp nag boo xamante ne buñ lu ko dóoralee bu dee xale nga danga da da say say morom moom da nga leen di raw raw gu raw raw gu jéggi dayoo nag goo xamante ne amul amul maslaa ndax man ndax loolu ñi ma ñi ma yàgg jëflanteel loolu xam nañ ko boo demee ci àll bi fu ne ku nekk jëflan na jëflante naa ci ak yow nga xam ne daal da ngay am ak ubbeeku goo xam day mujj yéem nit ñi da mujj saf nit ñi saf goo xam day mujj yéem nit ñi man noonu lay liggéey leen nit moo tax képp koo xam ne suñ borom wambat na ko ba mu ñëw fi man danañ ko teeru tatagal ko sargal ko jàppale ko ba faju ay ci mbokk yi numéro téléphone sëriñ Baara Mbacke mi ngi noonu affiché mbokk yi kii sëtub sëñ Fallou la waaye sëtub sëñ Baara Mbacke alaaj Baara mi nga xamante ni yaakaar naa Touba euh, jooy nañu ko wéet mais bi euh, bëgg naa ñu waxtaanee nag noob diggante góor ak jigéen waaye noob nga bëgg ne diw mii sax donte sax du sa jabar waaye am sa kilifa rek ngeen nekk nga bëgg mu jox la bopp noob bëgg naa ñu dugg ci. man noob ci wàllu anam yëpp laay def. Uh-huh. yaa xam da nekk ci entreprise ñu ginnaawal la. Uh-huh. yaa xam daa am koy jëflanteel bëgg mu jox la bopp maanaam bëgg mu gën a am ci yow cofeel ak ku mën a doon boo ñëwee li may liggéey dama koy liggéey ci deru till jox la ko nga takk ko kooku dana mel ni xaj ak borom Euh, yaa xam fooy mën a yëngu yaa xam ministre nga yaa xam député nga yaa xam da nekk ci parti yaa xam da nekk ci entreprise mhm. yaa xam ndaw la ndaw ndaw la sooy bëgg wala koy liggéeyal bëgg mu am ci yow cofeel boo ñëwee ma liggéey li may liggéey mhm. boole kook deri till jox la ko kook dana la la fonk sopp la ni ni xaj di soppee boroomam waaw ah, loolu loolu amul sikki sàkk da topp ni xaj di toppee boroomam noonu lañ koy liggéey ci wàllu yëpp nag dégg naa rab tamit côté boobu yàlla am na lu mu la ci may mooy nit ñi nga xamante ni rab dana tax ñuy gaaw a mer rab dana tax ñuy ëmb mu yàqu rab dana leen feebarloo rab dana tax ku leen dig mu tas loolu lépp tamit rab da koy faral di def. waa xam nga rab moom damay wax na rab ay kuréel la. am ay kuréel yoo xam ne ñoom la ñuy wax xaachan yi am kuréel yoo xam ne ñoom la ñuy wax xifrit yi ñuy ay kuréel yoo xam ne nit ki bu ko rab jàppee war ngaa xam kuréel yooyu ban ban kuréel moo ko ci jàpp nga xam yan xeetu kuréel la ginnaaw ba nga xamee yan xeetu kuréel la di nga xam ban garab moo ko war a faj ndax nekkul garab bi faj nit kii mooy faj nit kële rab yi nag am na ñoo xam ne da nga leen di tooñ ñu solu la nekk di la di la yàqal ak di la sonal am na ñoo xam ne nag doo leen tooñ ñoom ñooy mën a tooñ dugg ci am na ñoo xam ne itam ñoom yàqal nit ki rek moo leen tax a jug ki nga xam ne nag rab da koo sonal ba di ko yàqal ñun bu ñëwee incha allahu taala dinañ ko liggéey liggéey bu nga xamante ne rab dootu ko yàqal ndax nag maa ngi wax lu bees tey rab yi dañuy dund ay junni junni at képp ku la wax ne mën naa dindi rab ci nit ki boo ko ñemee nekk waxoo dëgg ndax ra am na rab yoo xam ne tey fekkee nañ jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam déedéet waaye nag rab bi ngay xool li mu bëgg nga di ko def maanaam sarax ya laaj nga génne ko lam laaj ci ay càngat nga def ko ba rab yi dootul yàqal nit ki doo bu doon da koy sadd dootu ko sàdd bu doon day tee alalam dootu ko téye bu dee day di taayalloo yaramam dootu ko taayalloo bu doon yàqal yi mu ko yàqal dootu ko yàqal waaye moo tax du ma man man dindiwu ma rab waaye dinaa téye rab ba dootu la yàqal dootu leen am benn problème mais nag dina nekk lu lay aar nekk sa kaaraanga waaye du la yàqal. suñ bi am jëkkër xale yu jigéen yu bëri ñu ngi koy jooy mais góor ñi takkatuñ jamono jii moom rek mooy tax góor gis jigéen takk ko ci lu gaaw parce que góor ñi foo lañ gën a bëgg ci takk. waaw xam nga góor ñi moom léegi caaxaan bi da leen a yomb moo tax kenn takkatu ci moo tax nag ma ah, moo tax nag ah, ku yorut ku yorut la mag ña yoroon nag ah, doo mën a kii àdduna loo gis secret la kon ñoom jigéen ñi ni ma ko waxee woon bii passé man li may bind ci téere su ndaw laa koy bind jox la ko nga takk ko ni ma ko waxee woon yaay ñu baree ñëw nga tànn sa bu neex bëggee nag. ak noo ko bëggee dañ lay ñëwal parce que am na ñoo xam ne góor a leen di ñëwal mais pour ñu takk moo jafe waaye man nag téere bi ma lay jox ñuy takk ñoo lay ñëwal ay caaxaankat duñ la ñëwal ay fookat yi nga xam ne foo rek leen tax a jug déedéet maanaam ñuy takk ñoo xam ne takk moo leen tax a jug moo lay itteel yaay tànn sa bu la neex nga sëy ak moom loolu neex yaa xam nag foo mën a dëkk ci réew mi ak bitim réew buñ la joxee téere bi nga takk nga am li nga bëgg ci kàttanu yàlla Serigne Bara Mbacké kayit mën naa ne sax jarusul ñu koy waxtaanee lu bari parce que li nga ci def ci preuve bëri na taalibe yi nga ñaanal ñu am bëri na ñi jébbalu nga ñaanal leen bëri na ñi jébbalul tamit nga ñaanal leen bëri na preuve bokk na ci li nga xamante ni yaa ngi koy liggéey muy wàllum kayit li nga ci def ci preuve kenn xam lu mu toll ñu bëgg visa wala sax ñu nekk bitim réew bëgg këyit séjour wala green card wala sax passeport. këyit moom dama cee mujjee sonn ndax maa ngi la koy wax léegi ndax ñi ma ci woo dafa baree baree baree bare ba man dama mujj sonn ci wàllum këyit ndax xanaa dama ne moom ña nekk bitim réew ñëpp këyit lañ bëgg ñaareel bi mooy dama ne xanaa ñi nekk ci réew mi ñëpp tukki lañ bëgg ndax dañ maa woowoo ba wàllum tukki bi sax maanaam dama koo xawoon arrêté ndax li ma ci jot ci ay nit dafa bari trop trop waaye incha allahu taala ci li nga xam ne mën naa ko wax yow mi nekk bitim réew yàgg fa te amoy këyit yaa xam da ngay door a dem te bëggi këyit incha allahu taala fexeel ba jot ma téléphone bu ñu waxtaanee ba juboo boo déposé dañ lay jox këyit ci lu amul benn sikki sàkk ci kàttanu yàlla. sëñ bi ñu ñëw nag waxtaanee daj dëpp gi gis nañ xale yi di taal ñeen ngi naan taal bi. président am na ci part de responsabilité waaye Macky tamit am na ci euh, Sonko tamit am na ci part responsabilité mais man sama gis-gis est-ce que nekkul ne Sénégal bu ñuy xeex neneen lañ ko waroon defee lu dul di taali taalipuna ak di baare ak di toj ak di yàq. waa xam nga ndaw lu am lu ko naqari mën naa mën naa def lu mu war def ndax ku ne ndaw xam ne deretam day tàng te ndaw maturité bi mu war a am du ko am mm-hmm. waaye man li nga xam ne jàpp naa ko mooy depuis 88 ba léegi. Euh, jamonoy abdu Diouf ba léegi tension bu fi mën a mas am rek président ba moo fexe ba fay tension bi euh, li may wax 23 juin ba réew dëkk bi day tàkk coow li nar a fay euh, ki nga xam ne moo di président ab lay Wade dafa woo député yi na leen teg leen loi bi ci suuf kon nag kii di président Macky Sall du sëñ président man maa lay ñaan sëñ Baara Mbàkke ngir fi nga jaar ak sama maam Cheikh Mouhamadou Baara ci turu mboolem ndaw Sénégal yi nga indi jàmm moom nag ni muy indee jàmm mooy na jéem a bàyyi lépp loo xamante ne luy mën a taal réew mi la comme ni mu ko waxee woon ne dossier buy taal réew mi da ci dëgg tànkam mu xam ne bii ci la bokk mu teg lii ci suuf te xam ne ndaw yi ñuy dee dañoo ami jur seeni way jur ñi ngi am lu leen metti te tey moom la ñu jiital ci réew mi te tey moom rek moo mën a indi jàmm ni ma ko waxee moo yilif président Sonko yilif ma yilif Sénégal yëpp nit nag boo yilifee sa njaboot da nga leen di tane kon nag maa ngi koy ñaan moom mu indi apaisement ci réew mi indi dal ci réew mi indi jàmm ci réew mi ndax jàpp naa ne bu ko defee ñu jé jéem a boobu muy wax jàpp naa li ci ëpp solo mooy dialogue ak jaloog ci lii di xew ci réew mi xool nuñ ko réglé moom bu ko mënul na ci kilifa diinay jàpp société civile bi jàpp kii di Ousmane Sonko ak Macky Sall mën a toog waxtaan jàmm am ñu bàyyi détenu politique yi moom moom Ousmane Sonko ñu bako mu bokk xalifa sàll ñeneen ak ñeneen mën a jéem a indi jàmm ci réew mi loolu daal laa ciy wax man. mais bi nit ki nga xamante ni dafa lekk aw ñam mu ne ci biiram kookee tamit ndimbal. waaw loolu lu mu ci mën a doon rek lu mu ci mën a doon moo xam aw ñam lañ la jox moo xam lu mu ci mën a doon boo ñëwee ma jël li may jël jox la ko nga naan ko incha allahu taala loolu danga koy dem duus ba mu jeex tàkk loola moom day denc ci yow nga xamante ne loolu moom amut amut amut sikki sàkka te itam danañ la defal kaaraange goo xam ne lépp lu la waay joxati nga yàbbi ko moo tax damay joxe lenn ñëpp ko xam la sëñ fallu daa def uh-huh. sëñ Fallou dafa waxoon ne képp koo xam ne bala nga añ wala bala ngaa reer wala bala ngaa lekk uh-huh. na nga jël ndox moomee donte ab kuddu la nga tibb ci ndox def ca toog sëñ Fallou day wax ne tooke wu ca nekk yàlla dana la ci musal beneen bi mu waaw nga jël ndox masalan nga jëlub kaas teg jël kuddu tibb ci eh, suy ci ci ci ci lekk gi sëñ Fallou dana tooke bu ca nekk dana ne da bismillah xaalit indi walit sama maama ma joxoon képp koo xam ne da koy def tooke wu nekk sa ñam wa yàlla dan la ci musal lool loolu rek ku koy def loolu du la dal bismillah xaalit indi walit bismillah xaalit indi walit ak jël ku ga eh, jël def ci ndox eh, def ci ñam wi moo xam muy reer wala muy añ wala lu mu mën a doon wala bala ngay lekk ne bismillah xaalit ibnu walid yàlla dan la ca musal kum xësa dal ba noppi itam boo ñëwee danañ ko dindi leneen waaw mhm. Sonko dama gis nga liggéey bàgg jaaro yu garaaw jaaro yu doywaar yoo xamante nii jaaro yi mën naa ne mi ngi faj aajooy doomu aadama yi ñu waxtaanee jaaro. waa bitim réew xam nañ ko. jaaro boo xam ne boo ko takkee da nga am ubbeeku. da nga am bayra. da nga am kaaraange. te doo dugg kaso. muy ñeent yi am ubbeeku. da nga am bayre euh, da nga am euh, teraanga. da am kaaraange te doo te doo dugg kaso. jaaro yi waa bitim réew xam nañ ko. ndax kenn ku ko ci laal da ngay mujj gis tubaab yi cofeel gi ñuy am ci yow moo xam muy góor wala muy jigéen say buntu ubbeeku foofa loo laal mu nooy moo tax ñoom waa bitim réew xam nañ samay jaaro ndax Cheikh Mamadou Lamine Baara Fallilu ku ne xam na jaaro yim daa joxe te moo jur sunu woy jur te loolee am na luñ ci téye moo waral ku fi ñëw rek bañ jox la ci jaaro yi da nga gis sa tedd nga da nga gis sa yokkute te loolu jaaro kese la laa wax jaaro kese laa wax boo ko jëf di nga am kaaraange dinga am lépp bokkut ak déedéet te man képp ku may jox képp nee naa la képp ku may ñaan lu ci mbir duma ci yem uh-huh. ku ñëwoon bëgg jaaro itam du ma yem ak yow ci jaaro uh-huh. dinaa la jox yeneen ak yeneen ak yeneen noonu la ñuy liggéeyee ñun ci côté cuuraay parce que boo xoolee Casamance gi nga xamante nii uh, am nga fa aw wàll cuuraay bokk na ci lañ fay liggéey ak xeetu xob yi ak xeetu garab yi côté boobu bëgg naa ñëw ci côté bant yi waa cuuraay moom liñ ci am daa bari uh-huh. da ci am yoo xam ne ay cuuraay la yoo xam ne day ubbi jaam bi ubbin wu doywaar am ci yoo xam ne da jox kaaraange gu doywaar di la musal ci saytaane ak xeeti rab yeeg yu nu mel am ci yoo xam ne dalay jox bayre gu doywaar loolu nag mooy xam-xamu garab yi nga xam ne ñi ngi ko gëstoo Casamance aki sunguf nga xam ne xam nañ ci lu baree baree baree bari ci sunguf yi ci sunguf yi ubbee ci sunguf yi joxe bayre ci sunguf yi joxe kaaraange te loolu yëpp fa lañ ko jànge yooyu itam képp koo xam ne ñëw na fii incha allahu taala danañ ko dimbali ci loola ba xam ne ba xam ne lépp lum mu masalaal dana dana xam ne li moog lii ak am na ci guute ndax dañoo dañoo dañoo dugg ci àll bi fu ne fu ab làkkat nekk dugg nañ fa ndax ginnaaw bañ gëstoo xam-xamu lasraar ci tubaa dañoo dem yàgg ci àll bi ni ma ko waxee woon yàgg Casamance yàgg Bissau yàgg Gambie te ba tey foo ci dem bëri nañ fay soppe te loolu ñun xam nañ ko ci ñun maa ngi koy wax rek benn mbokk taalibe démb di ko wax ne euh, fekk mu naan ma dañoo war a dem Gambie ma ne ko foofa la ma fa am ciy soppe ak i client kenn xamut nu toll kon moo tax képp koo xam ne suñ borom def na aajo ju mën a am ci li nga xam ne tudd nañ ko ak njortu gu rafet dana ci am ak ak yokkuteeg avancement. Mhm. Euh, sëñ bi euh, néew kàttan nekk na loo xamante ni dara gënu koo euh, garaaw jamono jii ban pexe ak ban saafara nga ci am loo xamante ni mën na koo saafara ci lu gaaw. waaw néew kàttan nag dama ci am ñaar. am naa ci pomade boo xam ne maanaam boobu bu dee sa awra dafa gàtt nga bëgg mu gudd. du koy guddal. ba ni nga ko sentiree ak ni nga ko bëggee. Mhm. am naa ci boo xam ne bu dee néew kàttan la ndax néew kàttan damaa wax ne daa nit ki amee siti ak hémorroïde loole day indi néew kàttan léegi nag faw ñaari jàngoro yooyu bu dee dañ laa diagnostic ko xool ba xam ne looloo la dal maanaam loo feebar boobu la ñuy njëkk dindi ci yow ba noppi door jublu ci new kàttan bu dee koo xam ne nag amul hémorroïde amul siti waaye moom yàllaa ko nattoo mu néew kàttan su boobaa kooku moom lañ koy jox produit produit bi nga xam ne nag day dëgëral xawra di tax nga maanaam ngay mën a sëy ci diiran bu yàgg waaye nag bu dee ki nga xam ne dafa am hémorroïde ak siti kooku moom feebar ba la ñuy dindi ba nopp ndax feebar ba moo ko jox mhm. taxaw na ci gàllaaj mystique jamono ji wala loo gis taxaw na mystiquement taxaw mystiquement moo tax mënuñu ko woon jëli Ziguinchor ak ay ndaw yu taxaw ndax affaire bi dafa am ñaari xeex muy xeexu zahir ak xeexu baatin xeexu zahir bi nag mooy li nga xamante ne moo di moo di ndaw yi nañ defoon taxaw barricade këram mënuñoo may kenn am fa accès ba tey noonu la fa jugee di ñibbi si Ndakaaru ndax tey li may wax sénégalais yi laay rassuré bu kenn tiit bu kenn jaaxle kii di président Ousmane Sonko gaañ bu ñu ko bëggoon jàpp man nañ koo jàpp de. ndax sàcc ndënd yomb na waaye foo koy tëggee jafe. l' essentiel bañ ko jëlee fee ñu ko jëlee. wàccewuñ ko këram. déedéet ñemewuñ koo tëj. li ñu bëgg mooy yàq éligibilité am. maanaam indi loo xam ne dafay yàq mbiram. léegi nag loolu ndawi Sénégal ñoo ko mooy li ma wax. loolu nag yàq éligibilité éligibilité boobu. maanaam mi ngi aju ci détermination ndaw yi. ndax gaa ñi boo gisee ñu waxtaan ba noppi ne pro euh, ne verdict bi le premier lañ koy joxe ñu ngi yabar renseignement généraux yi di déglu téléphone yi di xool nan la askan wi war a taxawee mm-hmm. suñ gisee ne askan wi dañoo déterminé mm-hmm. pare nañ pour tout pare nañ pour lépp mm-hmm. ñu deltu ginnaaw wala ñu woyofal ko buñ gisee ne nag mën nañoo maîtriser askan wi askan wi parewuñ pour dara maanaam su boobaa ñu door a def lu ñuy def moo tax lépp dafay aju ci taxawaayu ndaw yi. bàyyi la nga tàggatoo askan wi lay suivre ci MPROD TV. waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax na képp koo xam ne suñu borom dimbali na ko ba mu ñëw fii danañ ko dalal dalal bu rafet ku wootee itam danañ ko danañ ko wuyu danañ waxtaan ak moom danañ ko déglu lu luñ ci man ci xaajoom danañ ko ci def leneen leneen li may wax rek mooy mooy képp koo xam ne li nga xam ne moo di jëm ci wàllum xalwatu xalwatu képp koo xam ne suñ borom def na nu xool sa mbir gis na moom la laaj itam rawatina ñi ñi nekkee ci ñetti dëkk yi muy dëkk bii di Amérique ak dëkk bii di almaañ ak dëkk bii di Angleterre ñoom dañ maa jox seen secret ma liggéey ko ba xam ba ba téerawaanu dëkk ba moo tax képp koo xam ne suñ borom yabal na ko mu ñëw moo xam aajo ju manaam bu ñëwee bu laajee xalwa danañ ko dugal xalwatu incha allahu taala ba yàlla faj ajoom ni ma démarré woon rek laay tëjee mooy di ñaan suñ borom def si réew mi jàmm ndax jàmm mooy li nga xam ne mooy li gën réew mi gënti ci ñëpp ndax réew mi bu tàkkee buy metti du metti ci benn politicien du metti kenn waaye ci askan wi lay metti économiquement lépp day taxaw kon maa ngi ñaan jàmm ci réew mi di naan eh, borom xam-xam yi ak nitu yàlla yi ñëpp ñaan jàmm ci réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah dégg ngeen waxtaan wu am solo wi nga xamante ni Serigne Bara Mbacke waxtaan na ko mbokk jëmm ji maamam la ñu ko tuddee muy Serigne Bara Fallilou alaaj Bara yàlla yàlla yokk ay leeram jëmm ngi nii di jëmm ju bëri xam-xam jëmm ngi nii di jëmm joo xamante ni baatin la ko yàlla jagleel waaye nag mu jàng xam-xamul lasaraar waaye jàng xam-xam bi nga xamante nii mooy mbirum jataki reen li wa tax pour mu faj sa aajo lu yomb la ay co numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk ñu doon topp duñu ñu ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci dara darajay Muhammad Rasulullah